waaw soxna jaara eh, damay wax auzu billahi mina sheytaani rajim bisimilah rahmaani rahim man Selbé maa ngi sant yàlla di ko sant di ko sant julli ci yonent bi sangu sangi sallallahu alayhi di sant Sëriñ Tuubaa Rasuul ah, eh, di yeesal sunu njébbal ci Cheikhul Xaadim nan ko mbàkke aslamtu nafsi ilayka yaa xaadimal maxtaar tout le temps yeesal sama njébbal ndax boo doonee taalibeb sëñ Tuubaa war ngay yeesal sa njébbal foo toll di ñaanal sëñ Muntaxaa mi nga xam ne moo fa toogal Cheikhul Xaadim ci àdduna bi mu yàgg fi lool mbàkke balla te ànd ak wér sëñ Muntaxaa mbàkke yàgg fi lool te ànd ak wér du ma wax ba mu jeex te nuyu ma sëñ Moustapha As Siddiq sëñ Moustapha Si doomi Cheikh Tidiane si sëtu Serigne Babacar si sëtu Seydi Hadj Malick sëtu si Ahmada Tijani ak Siddiq waxkatu dëgg bi si Malick maa di la ñaanal nga yàgg fi lool si yàgg fi lool si te ànd ak ah, di la nuyu Soxna Jaara di nuyu waa Grand Théâtre waaw ah, kontaan naa ci ñëw biñ fi ñëw yow yaru nga baax nga dama lay ñaanal rek yàlla may la jëkkër ju baax mucc ak xéewal sa liggéey barkeel barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fu ma nekk rek fekk nga ma fa waaw. di sant yàlla bu baax jël si yonent bi di kontaan ci question bi ça dépend rek ci góor bi façon góor bi dafa am ñoo xam ne dañoo gore am na ñoo xam ne gore am na góor ñoo xam ne balaa ñu laa takk dañ lay xool ba xam testé la tëddee la boo amee ci ñoom buñ la buñ la buñ sentiree takk la buñ la sentirul bàyyi la am na góor ñoo xam ne dañuy violer nit te day fekk jigéen bi bëggul kóor gee koy forcer ba yegg ci yow bu fekkente ne nag am nga boroom kër yow wax ko ko nee ko man mii kat dañ ma violé woon dama ko nëbb samay waajur man nanga moo nekk ci man mu xam ko mais boo noppee mu may la un million wala deux million wala trois million wala cinq cent mille ñu ñëw muur la nga dem mu yaakaar ne man fii dinaa fekk dara mu ñëw fekk fa dara su dee gor la day noppi gis naa ko tey rek maa ngi doon waxtaan tey waxtaan ak benn nit yaa ngi dégg am na si ñoo xam ne duñ ko wax. mais am na ci ñoo xam dañ la koy xase bu ñu demee nag boo demee marché sax dañ naan jaar nga ci ci ay góor fekk mën naa am bi nga nekk xale dañ laa violé nga ne bu ko see waajur day am ndax doo bëgg sa waajur tëj doomi doomi jàmbur mu sama doom ak beneen dooma ci yem kenn ku ci nekk soo amee koo xam ne takk na la bëgg na la balaa mu laa waxee takk wax ko yow li nekk ci yow su boobaa ëllëg doo ci am problème mais boo ko noppiwaalee moom ci boppam bu yàlla defee dara mu ñëw ñu jox la ko say waajur taxaw di xaar gis naa ci koo xam ne dafa gore dafa dagg yaramam defal ko soxnaam mais bi mu demee ba mu yàgg dafa weer soxnaam da ko wax ah na góor ñi am sutura ndax jigéen moo leen jur te ñoom aussi dañuy juri ay doom. yalla mo ëpp sutura ñëpp yàlla ngi leen di mi ngi may sutural man mii mi ngi lay sutural mi ngi sutural góor mi ngi sutural yeneen jigéen li tax mu sàkk guddeeg bëccëg mooy sutura Youssou ndur way na ko de bu guddi gi doon bëccëg kon dina xumb lool ba jaaxal gaay waaw yàlla mu noonu la selbe bu defee lu bon rek mu daane mag mu daal koy wone mais dedit ndegam yàlla mi ñu bind di ñu dugal àggina di ñu dugal safara moo ñu mën a suturaal asimaat doomu aadama bi yàlla bind yow yaa ngi xaawi sa sa sutura jabar te am na ki ñoo xam ne du ñu ci yàlla yonent bi ak seenub sëriñ ne ba ñu juddoo ba tey mosuñoo euh, tëdd ak jigéen joo xam ne takkuñu ko ñu ci bëri duñ ko waat am na ñu bëri ñoo xam ne ñu ngi xas naan diw caga la diw lii la def te moom caga boobu ñuy xas tëddut ak ñoom sequl ñoom dara. te ñoom ñooñu di xaste mënuñoo waat bañ juddoo ba tey ne tëdduñu ak jabaru jàmbur wala tëdduñu ak jigéen joo xam ne takkuñu ko nañu seetaat yàlla li nit di def yoonu kenn nekku ci yow nit nga kese comme moom yow mënoo ko dugal àjjana mënoo ko dugal safara fenn fu nekk nga war fa yàq deram te yow mosoo gis poojam nañ seetaat yàlla ñoom ñoo fi a def ci mooy dong lañ dëkk kon suturaal ja jigéen dafa baax yàlla rek ma war a juger mais léegi doomu aadama yi léegi dañuy juger nit lii lay def yow lu ci sa yoon la woykat ba wax ne lu ci sa yoon sama junni bi lu ci sa yoon sa yoon nekku ci góor ñi nañuy suturaal seeni jabar yaa ko bëgg ba takk ko yaa ko bëgg ba takk ko loo ci fekk xamal ne sa wërsëg la jigéen ñit nañu am jomi ak fullay joo xam ne ndax eh, tey ji yow nga noppi ñu wéyale la nga nëbb ko sa yaay tey nga am jëkkër mu ñëw ñu jox la ko fekkul fekkul ci yow ci yow dara bu ëllëgee barke Seydina Mohamed sëy bu du am trois mois mu commencé la indil problème te loolu doo taxaw mukk nga ne sa yaay dafa fekkul ci man dara doo ko wax doone sa baay kii kat daa fekkul ci man dara mais waxtaan sa jëkkër nii ko man dama problem problème sangam problème nangam wala amone su la ci beugé mu tak la su la ci bëggul mu bay ndax lu yalla reud ci jëwub nit allah kulli halin bala nga dee di nga ci jaar mais ñoom dañuy nopi dañu am problème ba paré nopi bu ñu yang jëkkër après ya nga wax né ya nga gis problème bobu am jam man nak sama jam mom dañ ma koy may. bu yóbbu matu 60 ans du am jëkkër man duma laaj góoru xaalis damay tooñ naa nañ ma may 10 millions wala 20 millions ay wax la rekk njëgam ba ma nekkee jànq laa laajul 20 millions asima léegi góor dag may may sama jàmm may ma salaam loo am jox ma lu ma am jox la soo amul duma la sonal duma la xaar su ma waree togg ginaar ay ginaar nekk ci kër gi duma la xaar pour nga jox ma xaalis du am naa ginaar danga koy lekk ma lekk ci yow lañu ñu yàlla yow la ma yàlla booleel dama jël sama ginaar rey togg ba mu neex ma tegal la ko ci foo ak ree mais am na jigéen ñoo xam ne sonal nañu seeni jëkkër ma ñëwaat ci jigéen ñi gaa yi xaar leen ma 7TV incha allahu rabbi àdduna bi di dinañ xam man Selbé Ndom nan laa mëne dinañ xam man nan laa mëne du seet rek laa man du togg rek laa man maa ngi xëy yeneen yoo xam ne day yee xale yu jigéen ñi ndax xale yu jigéen ñi ñu ngi def ay bêtises xale yu góor yaa ngi def ay bêtises boo takkee jabar fekkoo ci moom dara nga noppi waxoo waajuram dara bul commencé sëy ak moom ba pare après nga koy sonal ku mën a sëy te yàlla rekk tax rek nga sëy ku mënta sëy te yàlla tax bul sonal nit bul fàtte nit ba mu am cancer wala mu am cardiaque jéggal ko nga seeti keneen mu seeti keneen foofu laa yem asalaamaaleykum wa rahmatullah